Euh, ba ñu xëyee ci suba ba léegi di wër mboolem bépp kilifa bu ñu dem rek loolu nga seede ci moom mooy taalibe la xaqan julit la xaqan taalibe Serigne Touba la boo xamante ne kenn mësu koo sikki sàkk démb ak barki démb ndax ñëpp xam nañu ne bokk na ci ñi nga xam ne ñu njëkk a taxawal étudiant murit kuréelu ñaari rakkaay yi bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko taxawal lépp loo xam ne yàgg nañu ko taxawal di ci liggéeyal Serigne Touba ñëpp gis nañ ne Madické bokk na ci fondateur yi ba ci daayira bi nga xamante ne moo nekkoon daayira bi nga xam ne sëñ Abdou Fata Gaynde Fatma ak euh, Serigne euh, ak Serigne euh, yàlla na koy yàlla yërëm dolli ay leeram ci fa mu tëdd moo ko taxawaloon àndoon ko ak sëñ Xaadim docteur bu sëñ Modou Balla ñu di ko taw feexul yi xam nga Madické bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo taxawaloon membre fondateur yi nga xam ne ñoo taxawaloon daayira boobu doon jàmbaar yoo xam ne yàgg na liggéeyal Serigne Touba doon koo xam ne lépp loo xam ñu koy liggéeyal Serigne Touba boo gestoo gis ca Madické euh, euh, muy bëccëg muy guddi mu taw mu ngi bu ñu ñëwee fii sëñ bi seede ak taalibeem wane ne taalibeem Serigne Touba la bu kenn amul lu muy natable nun duñu man lu may rafetlu loolu xam ne taalibeem Serigne Touba moom dara jomb ko kon ñoo ngi ñaan rek ci darajay bis bi rek liggéey bi nga xam bëgg na koo liggéeyal Serigne Touba rek yàlla jàppale ko ba mën a àggale liggéey boobu jërë ngeen jëf